Quand même, si vous, si vous voyez ce, ce là vous saurez que quand même c'est a un coup de beaucoup, de millions. Ok, tout à l'heure, vous avez fait l'inauguration également d'un poste de santé au niveau de, de ce track. Pouvez-vous devenir la euh, aujourd'hui nous sommes en train d'inaugurer vraiment le centre vie, mais dans un mois, maximum deux mois, nous allons inaugurer le poste euh, de santé de Ganaura, même, qui a été construit toujours par la paix, e mais, mais, aussi à côté, si vous voyez le bâtiment là, euh, c'est un bâtiment que la mairie a construit pour le siège vraiment des délégués qui sera aussi inauguré dans maximum dans, dans 20 jours. waa Paris ñoo ko fi tabax mu nekk sunu sunu partenaire yoo xam ne depuis ay lu mat lu mat euh, cinq ans ou six ans wala sept ans même euh, ñu ngi liggéey ak ñoom ñu ngi jàppale euh, tabax nañu benn maison de la femme moom la ñuy liggéey nii indi nañ benn crédit revolving bu 63 millions boo xam ne moom la ñuy doxalee ci dëkk bi muy xale yi muy femme yi ci la ñuy ci la ñuy liggéey tey ñu tabax lañu benn centre de veille bu am solo si joye bu rafet boo xamante ne si dafay nekk genre cadre tout petit ñu fa yar xale di leen

personnel yi nga xam ñoom ñoom ñew jappalé jangal kat yi mu nekk lo xam vraiment lu am solo lay doon. ngeen liggéey ci promotion bi. wa inshallah allah dañ ci liggéey bu baax parce que yaaka na tey liñ def rek waroon na ko délégué ñëw nañ imaam ñëw nañ bàjjen gox ñoo nañ jëri ñëw fa femmes ñun ñëpp gis ni vraiment fii liggéey bu am solo moom moo fi nekk pour ñu jappalé jappalé boobu. ok yaa ngi wax tam incessamment di ngeen di ngeen inauguré maison des délégués de quartier lan lay représenter wa tey euh, ñu ngi tey defar nañ ka Sandabe bi euh, demee ñu ngi dem ci walu postante bi mais aussi la maison des délégués de quartier parce que délégués de dañu am jëriñ soo déggee ñuy wax euh, commune quartier yi moo tax ñu wax commune moo tax comme ñoom am nañu association di réunion chaque jour di waxtaan di liggéey si liggéey bi am solo maire benn centre boo xamante ne si dañ leen ko mën a a baax. a xayma ci wàllum xaalis. centre bi man lancer ma parce que loolu c' est c' est pare mais quand ku ko xool xam ne ay ay yu millions yu bëri bëri la euh, vraiment nekk loo am lu am parce que dañ ko tabax pare équipé ko